est-ce que est-ce am na am na dina amaat latitude sax peut-être pour ñëwaat est-ce que mën na ñëwaat pour ñëw par exemple le jeudi je pas jeudi prochain parce ce que pense instant bi phase boobu noonu départ passe dépassé nañ ko oh dépassé nañ ko parce que première instance lañ nekk te démb lañ doon def interrogatoire par rapport au parquet. ak ñi nga xamante ñoom ñooy témoin c'est-à-dire ñoom ñooy témoin ak tamit euh, procureur nga xam ne il est parti au procès aussi joxe xalaatam par par le biais de ses réquisitions mm-hmm. donc procès pénal en général loolu moom moo koy lal c'est-à-dire dafa am ay ay yoo xamante ni ñoom ñoo gouverner li nga xamante moom mooy la procédure pénale parmi ces principes il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire le principe du contradictoire bu nekkee ne dafa am nit kuñ accusé yow muy beneen parti bi tamit ñu déglu ko. Mhm. mais tamit beneen parti bi bu nekkee moom dafa dafa choisir ne moom du ñëw comparaître léegi tamit après moom mooy tirer les conséquences de de droit boo xamante ne moom moo ci moom moo ci mën a am. donc foofu noonu ñu koy comme on est en matière criminelle lu ñu ko mën a jàppee rek mooy jugement boo xamante ne par contumace lay doon parce que en matière délictuelle am na loo xam ne dañu naan un jugement répudié contradictoire mhm. c'est-à-dire bi mën na la convoquer ñëwoo mais day juger jàpp ne ci biir jugement bi yow yaa ngi yaa ngi c'est-à-dire c'est en matière euh, délictuelle. Mhm. mais fii comme le viol a été comment dirais-je criminalisé on est en matière criminelle te c'est normal tamit l'essentiel li ci am solo rek mooy procès moom fii Sénégal dafa dafa dafa exister day am comme société yi nu muy doxee. procès yi day am léegi Grand Fall wax na ko peut-être procès bi nu ñu ko médiatiser moom moo tax mu am différence ak yeneen mais dañ fiy àtte ay affaires yoo xam ne ñoom ñoo gën a grave. parce que même affaire bi même bu nekkee ne crime dañu fi àtte ay ay ay ay ay kii man dem naa benn benn assisté naa benn audience mooy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy accusé gaayen bi ñu waxoon ne moom moo rey Fatmata Matar Ndiaye mhm. mais procureur bi bu muy def démonstration bi bu muy expliquer di def démonstration gars yi dañu doon yuuxu di jooy si salle bi dañ doon yuuxu muy expliquer nan la ko ah, rey reconstitution des mu koy def démonstration bi dañu doon yuuxu di jooy mhm. donc li ci am solo rek mooy daal gars yi dégg nañ te tamit beneen affaire bi mooy juge bi tamit buy àtte moom day déglu les parties te tamit lu ñuy wax la droit pénal est un droit de certitude c'est un droit de preuve te juge bi buy dugg en de condamnation dina am yenn éléments yoo xam ne am na ko te tamit forcément nii la war a mën a demee parce que viol la ñuy àtte àtte wuñu leneen mm-hmm. te viol ku ko wax dina wax pénétration sexuelle sur une personne 320 mm-hmm. loolu la wax viol da ko définir comme tout étant toute pénétration toute pénétration sexuelle sur une par contrainte par surprise menace ou léegi nag mu ne la loolu moo nekk les éléments constitutifs de l' infraction parce que infraction boo gis rek dafa am ay éléments yoo xamante moom mooy tax infraction boobu établir léegi infraction pour mu nag dina la laaj yow mi nga xam ne yow yaa ne yow yow yow yow yow lañ violé si yan circonstances lañ la violé si yan kii mm-hmm. déglu les témoins mm-hmm. foofu fa am solo tamit mooy dafa am beneen principe boo xamante ne en matière pénale dafa am solo mooy ce qu'on la liberté de la preuve mm-hmm. parce que dafa am ay mode de preuve yoo xamante ne moom lay moom la loi bi permettre tey ji yow bu bu nekkee mu nekk en matière civile wala en matière pénale tey moom nga mën a teg ci table bi tey boo nekkee ne da nga am problème ak nit yow nga accusé nit ñu ne la charge de la preuve incombe au demandeur yow yaa accusé nga ne man dama la diffamé wala dara yow yaa andi preuve yi ok yooyu noonu dañ ne la cinq modes de preuve la tey bu nekkee par exemple en matière civile dañ ne la l'écrit parce que boobu noonu le code des obligations civiles Euh, commercial moom moo koy gérer l' article 14 daf ne la il doit passer acte devant notaire ou sous signature privée de toute convention ne la yëpp bu ñëw ne fekkee naa ba mu koy mooy këyit mooy li ma doon wax léegi dafa ne toute convention dont l'objet excède vingt mille francs bu passé vingt mille francs par force daf lay exiger écrit donc loolu benn la en matière civile mais en matière pénale dafa am ce qu'on appelle la liberté de la preuve def na la en matière en matière pénale benn preuve ëppul beneen bi mhm. te parmi les preuves il y a ce la présomption du fait de l'homme mhm. boo xam ne juge bi mën na cee fondé wu entrer en de condamnation cest Sénégal nag. Alou Seynou xaaral Alou Seynou xaaral nañ def nànk-nànk comme ça ñun itam ñu mën cee jàng ñoom noonu la ñuy waxee ah, bu Amadou toogoon fii day wax ma naan ko Amadou dellu si waatal. ñoom ñoom les juristes noonu la waxee. waxoon léegi waxaat di nga léegi. am lu ñuy wax la liberté de la preuve en matière pénale. Mhm. c'est-à-dire droit pénal droit de preuve la droit de certitude la. parce que droit pénal droit de certitude mooy loo xam ne. du wóor xam nga droit pénal day sanctionné. Ah. droit boo xamante ni dafa jug di sanctionné. Mhm. parce que dafa lu ñuy wax mooy tey ay infraction yoo xamante ne tey dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy punir c'est-à-dire pour société bi fonctionner ñu ne lii dañ ko interdit lii dañ ko interdit lii léegi nag lii nii nii pour nga def ko pour pour ñu tëj ko il faut nga def lii nii le principe de la légalité criminelle mhm. c'est-à-dire am na texte boo xam ne prévoir na ko mhm. en matière kii nii en matière pénale dafa am lu ñuy wax l'existence des infractions mhm. ñu ne nag infraction pour mu am il faut la réunion de trois éléments l'élément légal c'est-à-dire benn texte prévoir ko te fii texte bu ñuy àttee Sénégal mooy lan code pénal moom mooy wax moom mooy moom mooy définir infraction bi prévoir benn fen infraction mooy nga tooñ loo xam infraction moo ki defoo ko dara mais dafa nekkoon en danger assisté loolu omission la hmm. mais c'est prévu. léegi nag mu ne la loolu moo nekk élément légal parce que teg texte kii na ko matériel élément matériel élément matériel vol mooy lan mooy nga soustraire yëfu jàmbur. Mm-hmm. kon loolu juge bi tamit deuxième élément bi loolu lay xaj ak élément intentionnel mooy élément moral moment bi nga koy def man tey mun naa ñëw jël sa portefeuille bi jël ko nii rek te bi ma koy jël jëlu aw ma conscient ne dama ko doon jël pour sàcc ko mais dama romb ni jël ko peut-être dafa rafet pour moo xool wala affaire yi ma dem ak moom fàtte moment boobu noonu damaa intention pour voler juge bi tamit xool loolu li ci am solo mooy tey am na ay témoins yu défilé par rapport ak ak ak ah, ak surtout nag ma ah, surtout am na ay témoins yu défilé te ah. tamit affaire yi problème bi mooy comme comme genre cas yu demee yu demee ni day bëri day bëri ay nit ñi di ci wax yoo xamante ne en général ku nekk rek lu la arrangé ngay wax mhm. ku nekk lu la arrangé ngay wax c'est-à-dire affaire bi dafa bëri ay wax yoo xam ne Alou Seynou man dama gis ne les gens ont plus parlé euh, surtout la presse la ñu gën a wax wax wax wax ñoom ñëpp li ñu gën a mettre euh, en avant mooy les propos d' ah, Adji s' moo fa nekkoon c' est tout à fait vrai mais le fait que li ñu a mettre en valeur mooy affaire a autre chose a des gens qui sont passés les témoins. Mhm. ñi nekk woo say témoins lan lañ fa wax. Mhm. Adji moom moo ne dañ ko accusé de viol c' normal que mu taxaw expliquer détail par détail détail par détail. Mhm. c' tout à fait normal léegi nag ñeneen ñi nga xam ne ñoo fa jaar les témoins yi ñu woowoon ñoom ñoom ñoom ñoom kii ñu ngi fa ñoom capitaine Touré ku ci nekk am na loo wax. Mhm. lan lañ wax. lan lañ wax parce que xam nga ñoom peut-être euh, capitaine Touré soo xoolee moom ci ci cas bi ñu ko ooy ku nekk dafa am c'est-à-dire say responsabilité ci mbir mi. quand même parce que Adji Sarr mbir mi bu muy am moog Ousmane Sonko ñoo fa nekkoon. Mhm. donc moom version am lay joxe. waaw léegi version Adji Sarr bi ñu ko dégloo dañoo waroon déglu tamit version Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko comme moom moo teewul mënuñoo déglu foofu version am. Mhm. léegi beneen bi mooy Ndeye Khady Ndiaye forcément dinañ ko oo parce que moom moo nekk propriétaire salon bi jëkkër ji dinañ ko oo parce que affaire yi bi muy am moo ngi mm-hmm. peut-être am na lu mu dégg wala mu gis te témoin mooy li nga gis wala nga dégg mm-hmm. loolu moo nekk témoignage yaa ngi dégg capitaine Touré c'est normal parce que tamit moom moo auditionné woon parti yi léegi comme moom moo leen auditionné am na ay mbir yu ci am man dégg démb bi ma déggee capitaine kii bi am na ay benn contradiction bu ci am moom ak au début dañu doon wax ne dañoo falsifier PV yi. PV hmm. mais démb débat yi li ci génn mooy PV boo koy jël da ngay déglu parti boo dégloo parti yi déglu ku nekk wax ba pare nga déglu témoin nga def ko léegi moom capitaine bi ci boppam dafa jox appréciation par rapport ak li ñu ko def léegi appréciation yooyu mu defoon la procureur bi wax ko na ko dindi. parce que moom yaa ngi dégg tey amul pour joxe ay appréciation te nu ñu ko joxee. du noonu donc man pour man ci sama xalaat ci sama xalaat xalaatu xalaatu doomu aadama. yaa ngi dégg mooy loolu noonu mënul am benn benn benn benn benn benn effet juridique ci PV bi tey bu nekkoon dañoo ne allégation yi nga xamante ne Adji saar defoon na ko devant la gendarmerie dañ ko modifié wala dañ ko dindi loolu dina am ay effet mm-hmm. wala yi nga xamante ne ay ay waxu usman Sonko dañ ko soppi dina am wala benn témoin mm-hmm. mais waxu waxu waxu kii kii xalaatam na joxe na ko peut-être état bi moo ko gisee nii nii nii circonstances yi mu nga joxe say appréciation quoi mm. loolu c'est libre nga pour def nit moo ko def par rapport ak loolu la beneen témoin boo xamante ne tamit mënoon na ci gën a édifier nit ñi lu gën a bëri bëri moo nekk docteur Alfousseyni Gaye docteur Alfousseyni Gaye gars yi déglu nañ ko bi ñu ko dégloo moom it moom li mu wax dafa leer parce que tamit médecins yi gi nga nit ñu nekk dañoo am seen i terme mhm. bi mun na utiliser ay termes yoo xamante tey doo ko maîtriser doo ko wax wax nañ fi façon lu nekk wax nañ ko ci certificat médical mhm. yaa ngi dem te bi ñu koy bi ñu koy li si njëkk a génn mooy moom nee na dafa am benn avocat bu ko oo ne ko xale bi peut-être dañ koo agressé wala affaire yu demee noonu il faut nga dem nga dem xooli ko. Mhm. moom mu ne du mun a dépa mu ne ko non boo déplacé wul mun nañ la toppee non assistance d'une personne en danger. Mhm. mu ne moom moo taal otoom dem jëli sii Ahmed Mbaye liberté six extension docteur bi moom moo ko wax. Mhm. jëli Sidi Ahmed Mbaye yàpp ko ñu dugg si kéem dem ba Sweet boote jël aji Sarr jugee Sweet Beauté dem fële na le euh, Idrissa Pouye. moom la à la moom moo ko wax à bi ñu foofu noonu si la defee ay prélèvement mhm. ñu def ay prélèvement prélèvement yooyu lañ dem jël ko yóbbu ko ci laboratoire bi ñu fekk fa ñu fa fekk. donc ce qui ak lu si avéré lu ci gën a am mooy certificat médical boobu mënoon na justifier lu lu mais certificat médical mënul démontrer ne l' existence mënu koo mënul démontrer loolu quoi mhm. parce que certificat lu mu war a wax tey def naa ko bi ma fekkee lii laa fekk ci moom ak yooyu par rapport ak élément yooyu nag juge bi ci lay poser question lii lu ko waral affaire yooyu moom moo waral ñuy wax naan wax yi fa amoon ak yooyu. man li ma am na ñu ma ci déggaat ñu ne ay témoins lañ muy les autres masseuses. waaw am na am na ah non am na ay témoins am na benn témoin boo xamante ne maman Ba. maman Ba mhm. waaw. maman Ba moom gars yi déglu nañ version yi mais moom tamit li ci gënoon a am solo mooy moom nee na. benn instant ñoom moo kii ñoom ñoo doon maase Ousmane Sonko mais benn instant Adji Sarr dana ko na génn léegi moom après ci la génnee ci la génnee après affaire bi mu jeexee Adji saar ñëw may ko foog naa dix mille francs mm-hmm. ne ko Ousmane Sonko moom moo ko may mu may ko dix mille francs mm-hmm. yaa ngi dégg am na beneen massage am na beneen masseuse bu ñu fa andi bu sant Ngom Ngom mais kooku il paraît que nekkutoon ci cabine ba mu quoi moom nee na beneen cabine la ne mais moom c'est-à-dire xam naa ne témoignage bu ñu doon def c'est par rapport ak fee yi nga xamante dañ ko doon reproché Ndeye Khady mooy débauché ak yooyu cest à liggéey bi si yan cadre lañ ko doon defee mais moom Ndeye Khady dafa ne moom xamul kii dafa ne moom dafa ne xamul kooku ma yaakaaroon no ma Massa kooku mus na fa liggéey mais nekkatu fa. non kooku si boppam nekk fa mais moom dafa ne moom moo mettre en rapport Ndeye Khady Ndiaye ak Adji Sarr. pour mu jël ko mais moom nekkutoon ci place boobu beneen place la nekkoon. nee na loolu la ñoom en si gën a bëri consulat naan man une semaine laa fa defoon wala affaire yooyu noonu duñ fa mais moom nee moom. mais le fait est que ñoom jaar moom nee na employé mais si beneen salon la nekkoon. yaa ngi comprendre si beneen salon la nekkoon mais loolu tamit Euh, dañu def dix ans de réclusion loolu la loolu la procureur bi euh, wax euh, lool la requérir mm-hmm. noonu la ñu koy waxee dix ans de réclusion criminelle contre Ousmane Sonko mm-hmm. ñu ne ñenn ñu naan cinq ans ferme moi j'ai pas compris en fait li nga xam ne moom la ñu moom la ñu moom la procureur bi def réquisition bi dafa def réquisition mais réquisition bi boo xoolee dafa dafa dafa def réquisition ba pare mu indiwaat beneen affaire bu bees parce que boo xoolee Ousmane Sonko dañ ko doon toppee viol menace de mort yaa ngi dégg yooyu noonu léegi procureur bi tamit moom tey partie la au procès yoon da koo may mu jël ay réquisition mais réquisition yooyu noonu du lié juge bi mhm. cest moom bëgg-bëggam lay wax parce que il est parti au procès okay. mais bi muy def réquisition bi dafa ne par rapport à l'infraction de viol dafa demander dix ans d'emprisonnement mhm. léegi mu ne juge bi yow boo yow boo jàppee ne viol amul sax maa ngi lay demande nga disqualifier les faits mu andi beneen infraction bu bees l' article 324. dafa viser cent article 324 boo xoolee moo nekk fii nii 324 bii nii man après man bi mu waxee infraction bi sax infraction bi dafa maa jaaxal quoi ba ma dem si maître Abdou Dialikat di ko laaj bi mu ne ma non affaire bi xam mooy infraction bi mooy li nga xam ne mooy corruption de la jeunesse. xam corruption de la corruption de la jeunesse def na léegi na nga disqualifier fee au lieu comme yow boo jàppee ne sax viol amul ah léegi dama lay demander nga disqualifier ko c'est-à-dire léegi nga toppee ko corruption de la jeunesse te corruption de la jeunesse moom nii c'est prévu par l'article 324. du code pénal moom laa doon waaw oh. moom laa doon vérifier pour xoolaat. Ah, léegi loolu nag la ñuy wax la disqualification des faits en matière pénale tamit yoon may na la nga requalifier wala nga disqualifier. Ah. tey ñu la doon toppee vol en réunion affaire yooyu noonu vol en réunion dégg nga commis pendant la nuit affaire yooyu ñu dem bu ba ci biir ñu xam ne yow bi ngay commettre vol bi nekk woon en réunion yow kese la woon nekk woon ak keneen nekkutoon association donc noonu. procureur mun na demander disqualifier mu disqualifier fee mu def ko vol simple wel boo xam ne yaa ko commettre yow. waaw